tatan nañu lu bëri fii ci wàllu euh, li ñu fi liggéey ñu ngi remercier le directeur donc général Aporosi bi nga xam ne mooy dalal ma xamal leen rek moom mu ngi def kem kàttanam parce que foo dugg entre boo dugg di nga koy gàttanu ak gàttanu bi nga xam ne kii nit ñi min nañ ko xam nañ ko mu ngi nekk seen wet mais nag euh, xool kese ci wàllu entreprise doxul dara doxal na mais doxul lépp moom war na ko jàppale ci baax a baax ci entreprise war na ko jàppale également ak euh, assainissement bi ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne moo tax nit ñi di ñëw fii taamu euh, taamu taamu euh, jam ñaajo loolu nag maa ngi koy maa ngi koy jagle gouvernement bi assemblée nationale nag moom lu mu sàlloo mooy d'abord voter budget représentation voter budget mais évaluer politique bi mais également contrôler exécution mais balaa nga def yooyu ñaar yu mujj yi il faut nga xam xam boobu nag vraiment wax nañ tur 33 33 au moins ci domaine industriel bi 33 unités yu nekk fii au moins visite na lu ëpp vingt et unité loolu nag wax dëgg yàlla lu ñu gis lii gis nañu Sénégal mu ngi avancé wala Sénégal mën na gën a avancé. pour le moment trente cinq entreprise ñoom ñu ngi daw di daw am nañ cinq mille personnes yoo xam ne ñoom gis ngeen leen.

Euh, dañ ko war a euh, defaat ci yeneen région yóbbu ko ci yeneen région yi su fekkee ne Dakar pare na te foog naa député yi gis nañ ko dinañ ko mën a défendre bu baax a baax euh, laaj ngeen ma ndax dañuy wax pour plaidoyer ñun daal dañ bëggoon def transparence rek wane exactement li nga xam ne moom lañ nekkee li nga xam ne moom lañ fi def député yi gis seet ba pare am seen seen seen compte rendu mais liñ mën a wax aussi moy que né ñu ngi ci liggéey état Sénégal def na lépp quand même pour que industrie am fi xam nañ peut-être wané wuñ lu bari trop trop trop mais xam nañ ne fii am liggéey potentiel industriel dans la zone.